bokk yi jaajëfal leen bu baax ci fasante kóllëre gi ak wute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 euh, Dakar kàddu gi bàyyi ko Sacré Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan euh, juróomi waxtu jot na bisimilah ci xibaar yi. Euh, dinañu ko doore ak bésug tey gi ñu daal di nag euh, sargal euh, kii di Ousmane Tanor Dieng fàttaliku yi gannaaw at mu daal di nag wuy ji boroomam jamono ji ñu jàpp na nag ndono li daanaka bu métti la waaye faaw ñu daal di fexe daal di koy sow gàtte waaye itam fexe daal di bàyyi xel fexe ba tegaat loxo ci nguur gi muy ci coalition wala ñu demal seen i bopp dinañ ci daal di jukki na ko militan yi ko daal di nag wutu daal di xamle dinañu jukki wax sa xalaat lu aju ci wàllu héritage ci wàllu nag parti politique yi ci kanam lay doon Euh, tooraat li nga xam ne mooy transport bi ci jaww ji di dem bekk euh, dikk bi euh, protocole bi nga xam ne moo cay daal nag aju jëm ci matuwaay yi woy tukki di jël daanaka dinañ ko amal ba mu mat sëkk tey jii ñu ngi ko dal mandargal foofa ci aéroport international Blaise Diagne dinañ ci jukki itam situation Covid 19 bi di mbas mi ak ñetti kaa yu faatu diggante démb ak tey lu war a toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn kaa yu bees ci wàllu nak wàllante ministère santé daal dina ci rek addu ak cas de communautaire yi ñu jàpp ne ba léegi mu ngi fi daal di nag des ndax fanweer ak ñeent ci ay cas euh, séddale nañ ko diggante Ziguinchor Ndakaaru Popenguine Tivaouane euh, Touba Saint-Louis ak yeneen i euh, diwaan ba tax ñuy sàkku ñu gën jël matuwaay yi beneen ponk lay doon ni ñu koy defee saa su ne wàllu tabaski bi ak njëndum xar mi ministre bi daal nay def wàllu xayma jëme ci wàllu wii lu war a toll ci juróom-ñetti téeméeri junni ci ay nag jur yu ñuy daal di nag na rawatina ci wàllu frontière bi ministre bi nee na lépp luy matuwaay dinañ fexe ba daal di koy nag jël moom Samba Ndiobène mooy doon sax suñu ganu xibaar yi dina doon ponk beneen ci wàllu wax sa xalaat ndax mooy ay di njàmbat jamono jile ci pencum euh, Sénégal euh, wàccaay bi ba ci wàllu nag euh, nawet gi ci yenn ci ay yëkk diwaan rëq-rëq yu mu fa daal di nag indi dinañ ci daal di nag jukki wàllu kaso yi itam ak màgget ya ñu màgget waaye itam détention yu yàgg yi yu jëm nag ci wàllu mbir yi ñuy daal di conditions yi yeneen IGE daal di ci nag addu ak xayma ba mu daal di nag def ak yenn ci yorin bi nga xam ne nag jaarul ci yoon mbir moomu nag faa ñu daal di koy nag dabatal bu ñu sukkandikoo euh, ci nag waa euh, Amnesty euh, International Sénégal dinañ ci jokkoo jekk Seydi Gassama ponk bu mujj bi ci wàllu wax sa xalaat lay doon dinañ ci toftal yeneen i xibaar laata ñuy ubbi antenne bi Alassane Thioune moo ne ci sottandikukaay bi faram-fàccee gi neeskis lay doon. Adama euh, ci kàddu gi ni ñu leen ko waxee ci xibaar yi ñu daal di koy nag doore ak euh, bésuk euh, ñaan ak rek daal di delloo njukkal kii fi nekkoon jiital parti socialiste di Ousmane Tanor Dieng fukki fan ak juróom ci weeru sulet bi la foofee ca Thiès ñu daal di ci dellu siwaat ne ñu nag union socialiste ya fare ca dëkk boobu di Thiès wàllu ndono bi la ñu daal di wax ni daal gis nañ ne metti na lool waaye socialiste yi fare foofee ne ñu daal bëgg nañu fexe ba xar seen tànku tubay ñu daal di nag taxawu la seen jiit daan doxal Thiès Babacar Ndaw ah, muy responsable wala militant simple rek bu parti socialiste ñu daje si bésub àllarba ji si permanence parti socialiste kër Ousmane Ngom bu Thiès wàccee Kamil waaye ñaanal seen euh, secrétaire général Ousmane Tanor Dieng ah, Doudou Ñaaña Diop yor kaddu union communal parti socialiste bu Thiès. compétence su Ousmane Tanor Dieng éducation Ousmane Tanor Dieng connaissance su Ousmane Tanor Dieng en politique publique parce que dina xaw a jafeñ mais ñu topp rek ci ay tànkam. bu ñu sukkandikoo si ndey Kumba Jaxate jàpp nag ne jigéen ñi seen bopp tey jii sëngeem nañu. ñu koy jooy ba léegi te noppeegul ndax ku amoon yëg si jigéen ñi. jàppale woon jigéen ñi ku fonkoon jigéen ñi am fu mu ñu teg ñun ba léegi dañ koy jooy noppeegul ndax baaxam ak laa biiram ci jigéen ñi am fu mu ñu jëmee woon te yàlla dogal li am mu métti ñu lool ñu di ko jooy ba léegi ñu ngi ci taxaw am Pastef boobu fas yéene képp koo xam ne taxaw na ci palaasam ñu ànd ak moom ni mu ko bëgg woon ñaan mu yàlla jox ñu ko gën a rafet ñu sukkandikoo si Souleymane Ndiaye Ibrahim mu jiite parti bii di bloc populaire bu sénégalais nga xam ne parti allié la ak parti socialiste bu mag la Sénégal ñàkk bu la pas da nga yóbbu ni bi daal li mu la yéene mu defal xamal naa ne dem fenn si yóbbaaloo moo man parce que am na fu ma tegoon wax dëgg yàlla boo ne si parti bi mais ñi ko entouré woon amoon na si man mais du promettre li mu la wax mébét ñi nga xam ne socialiste yi nekk fii si Thiès bu ñu sukkandiku du Doudou Ndiagne Diop jàpp na ne euh, toogaay moom amatul. parti socialiste rôle am devoir objectif am mooy jëlaat pouvoir bi loolu mi ngi ci bopp ñu bari que parti socialiste dafa war a ñëwaat Babacar Ndaw Thiès Sud FM Babacar Ndaw benn at gannaaw ba mu laxoo moom Ousmane Tanor Dieng ban doono la bàyyil ak euh, ndaw ñi ndaw ñooñu di ci àddu secretaire général bu jeunesse socialiste bu Kaffrine di daal di woon ak ay camaradam yu fari nag ci parti bi ñu daal di fexe euh, lépp loo xam ne liggéeyam la woon ñu daal di koy fësal rawatina jëme nag euh, ci askan wi bu ñu sukkandikoo ci Coumba Ndoffène Diouf nee na responsable yi fa ñu daal di wane ab volonté taxawaay bu ko defee ay ambition ngom kii nekkoon général ñu daal di koy taxawal te mooy fexe rek jëlaat nguur gi ñu ànd ci coalition wala ñu mën a demal seen bopp ñu teewlu ko ci moom Koumba Ndoffène Diouf ci micro Babacar Samb. tey jii ñun ndaw ñi war nañoo seetlu bu baax a baax a baax ci doxalinam ci gis-gisam ba loolu nga xam ne xamoon na ne bis na ñëw moom dañ fi nekk waaye lim ñu def ci ñun fi la koy bàyyi. ci ay valeur ci respecté kàddoom ci xam luy doomu aadama. xam lu njëriñu politique moom yar nañu ci yar nañu tamit ci ay bale jub am dignité loolu ñun jàng nañ ko ci Ousmane Tanor Dieng kon ndax ñun ñun ñoo war a fexe ba jëmmal bëgg-bëggam ñu des te jàpp ne ñun ñoo bokk sat jàpp ne Ousmane Tanor Dieng ba muy xale babal lii li olof nga wax ñeey bu muy xale babal doom daa tax ba mu ñuy dugal ci parti socialiste di ñu mettre en confiance di ñu jox ay responsabilité di ñu tàggat c'était pour que euh, te jii nga xam ne nekku fii ah ñu mën a ah, téye drapeau bi kaw ba nga xam bu ñu ko ñu rus kon war nañoo fexe ba bokk na ci li li mujjoon nekk yéeneen mooy daj dajale njabootu partialiste kon ñun ndaw partialiste ñun ñoo ñaay ñooy ñaan suñuy mag na ku nekk fàtte sa bopp te jàpp ci li nga xam ne mooy intérêt mbooloo mi mooy intérêt askan wi ñu boolewaat famille socialiste ba nga xam ne la nekkoon suñu defoon ëllëg nekk ko tey ñu mun koo euh, wéyal suba waaye dafa ñoon wax ne ah, kenn kenn xëy na dañ nekk ci ci jamono boo xam ne dañu war a àndandoo dañoo ànd deux mille douze ak Macky Sall fal fal ko deux mille dix-neuf ñu falaat ko ñu ànd falaat ko maanaam nag bu jeexee war nañoo xoolaat suñu biir mbooloo mi ñuy doxalee ba xam ne du tas ba nga xam ne dinañ xool ci suñu biir ana kan moo yeyoo wéyal liggéey bi nga xam ne su mu ne ko depuis deux mille dix neuf depuis deux mille douze te liggéey boobu nag kenn ku nekk ci war na koo mën a wéyal te maa ngi ñaan yàlla mu nekk ndaw Pape Sud FM Euh, ba tey ñu daal di nag euh, dikk ak euh, dorteel li nga xam ne mooy transport aérien bi dem bi dikki bi ci jaww bi ak nag la ñu war a sàmmonteeg charte ngir ñii di nag way tukki man dem ak dikk ci wàllu nag kaaraange rax ci dolli itam li aju ci wàllu gungewaatu yi ba ci foofu ca aérogare bi nee ñu nekk na lu ñuy aaye wàllu raxasu bi loxo yi ak jël température nit ñi loolu faw ñu daal di koy nag amal ba ñu sukkandikoo ci directeur bu transport aérien di Omar Khassimou Dia ñu teewlu ko ci jokkoom ak El Hadj Malick Ndiaye. waaw ci wàllu ouverture frontière aérienne yi waxtaan nañu euh, waxtaan wi ministère des affaires étrangères moo ko doon jiite euh, waxtaan nañu ak suñu homologue union européenne yi euh, daanaka fi mu nekk nii ñoom nga ñuy déglu parce que ñoom ñoo jógoon décision ubbi seen ay dëkk pour yenn réew yi nee nañu décision boobu dañ koy réviser fukki fan ak juróom yu ne dinañ ko xoolaat bon léegi ñoom nga ñuy déglu. waaw mais gis nañ ne euh, tey jii nag la ñu dooraat dem bi dikk bi ci wàllu jaww ji lan mooy effectivité bi naka la tëddee tey jii nii. waaw tey jii tey jii vraiment ñun jëg nañ mesures yi ñu waroon jël yëpp pour effectivité bi euh, aéroport bi am na ay mesures yu ñu ci jël avion yi am na ay mesures yu ñu ci jël def nañ benn protocole sanitaire bi nga xamee ni moom mooy permettre euh, nit ñi mën a def tukki ak karange Euh, ubbite bi nag commencé na euh, parce que Air Sénégal euh, def na voram Air France def na voram ay Iberia Ethiopian et cetera bi commencé na mais nag commencement bi mënul nekk commencement bu bu ci début bi ndànk-ndànk rek la lay lay lay commencé. tàbbi ci li nga ci daal di kon nag euh, tab bi ci li nga xam ne nag mooy euh, ñetti cas ñàkk seeni nag bakkan ci wàllu mbasu covid 19 bi euh, téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn ci ay contamination yu bees li ni mel la ñu daal di nag euh, xayma ministère santé daal di wax ne fanweer ak ñeent ci ay cas yu bàyyi ko ci transmission communautaire ñu séddale ko diggante Ziguinchor Ndakaaru Popenguine Tivaouane ak euh, Touba ba Saint-Louis fanweer ak ci ay cas grave ñi nekk di topp jamono jile ngir ñu daal di wér ñu sukkandikoo ci leeralu docteur Mamadou Ndiaye mi ñu dénk wàllu wàllu santé ay leeralam ci micro Sud ci juróom-ñetti téeméer ak ñeenti test yu ñuy def téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn ñoo ci positif ci ñooñu am nañ ci juróom-ñeent fukk cas contact mooy ñi nga xam ne dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji mu am ñaari cas yu jóge bitim réew te ñu ngi duggee. aéroport international Blaise Diagne bu Diass mu am fanweer ak ñeent ka communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci doomu jàngoro ji te xamuñu fiñ ko jële jëlee Ziguinchor am na juróom-benn Popenguine am na ñett Cambérène am na ñaar Tivaouane ci Kër Mallé am na ñaar Mbao am na ñaar Parcelles Assainies ñaar. Pikine ñaar Pout ñaar Touba ñaar Derklé benn Jëppal benn géjawaay benn Xombol benn Liberté 3 benn Liberté 6 benn Mariste benn Ouest Foire benn Passy benn Rufisque benn Saint-Louis benn ñaar fukk ak juróom ñi entré woon hôpital wér nañu maanaam te dinañ génn bésu tey bu ci yàlla àndee fanweer ak juróom-ñaar ñu ngi ci service réanimation ñett ñàkk seen bakkan ni ki démb talaata fukki fan ak ñeent ci weeru juillet bi ñu nekk ñeneen ñi des ñu ngi am tan ci bésu tey mbas mi du Sénégal jot nañu wàññi juróom-ñetti junni ak ñett téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti kaa ci ñooñu nag juróomi junni ak juróom-benn téeméer ak juróom wér nañ si téeméer ak juróom fukk ak ñett ñàkk nañ seen bakkan mu des ñaari junni ak juróom-benn téeméer ak fukk ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaal ñi nga xam ne dañoo ñàkk mbokk yi nga xam ne am nañu ñu wàññeeku ci seeni malade ñu nekkoon hôpital di ñaanal ñi des yàlla fëgg seen bopp ba ñu génn ak jàmm ci la ñuy daal di tàbbi ci tabaski bii 2020 euh, li nga xam ne mooy xayma ministre bi ñu dénk wàll wii nee na daal war a toll ci juróom-ñetti téeméeri junni ci ay euh, jur ñu ngi koy daal di nag xaarandi xibaar yi ñu amagum nag ci wàllu euh, poste frontière yi mu daal dal na xel ndax wane na ni daal bu fekkee ne ak wéyee na dina dinañu fexe ba wàllu xaar li ci senegal soxla yëpp daal di koy am ba tax mu jàpp ne lépp lu aju ci wàllu ak matuwaay yi dinañ ko daldi di nag jël. bu ko defee ñu mën a nag euh, séddale askan wi li nga xam ne mooy euh, xar yi ñu daal di nag soxla euh, ministre bi ñu dénk wàllu nag càmm gi di Samba Ndiobène Ka ñu déglu ko ak El Hadji Malick Ndiaye. tey suñu xayma ci wàllug soxlay Sénégal mu ngi toll ci huit cent trente six en termes de besoin maintenant nag euh, Dakar kese ci boppam mu ngi toll ci deux cent soixante cinq mille têtes donc loolu noonu kon kenn ku ne xam na euh, ay xar yu bari la laaj waaye euh, li am solo ba am solo mooy li ñu noté gum ci poste frontalier yi moom mooy Rosso mooy Matam mooy Kidira au niveau marché yi nga xam ne aussi dañ ko am ci biir réew mi tey tey mën naa ne ni démb rek avec poste frontière bu Kidira mën naa ne même période euh, daaw suñ ko comparé ak même période daaw mën naa ne ëppal nañ luy tolloog vingt mille têtes kon su loolu tendance boobu continuer am nañu yaakaar ne marché bi dina mën a am vraiment xar ni mu waree waaye nag du caagin aussi pour ñun une raison ñuy wax nit ñi que ne euh, bu ñu jël ay disposition dama bëgg kenn ku ne xam ne mbir mi mbirum la mbiru Sénégal la mbiru ñëpp la kon kenn ku ne def kémtu lay kàttanam de son côté pour Euh, mu mën ci participer activement pour que ñu am réussite pour tout le euh, ñu daal di desandi ak tabaski bi ba tey ak Ziguinchor nga xamee ne foofu marché ba nee na euh, ba tey amagul nag la mu soxla ci wàllu nag xar te fukki fan ak juróom des ci yëf yi lu war a toll ci ñaari junni ak juróom-ñeenti fukk ak juróom-benn jur lañ fa daal di nag gis te xayma yëpp nag war na toll ci ñaar fukk ak ci ay junni. man jàpp ne comme juróom-ñeent yoo jël ci téeméer rek la ñu amagum situation boobu nag askan wa ñu ngi ciy daal di nag amee ab euh, xel ñaar rawatina ci prix yi nga xam ne jamono ji cher na lool Ziguinchor benn Michel Kanfoudi ñaari ay bés rek des sañu la ay delke biir wala bokk tabaski waaye nag fii ci diwaanu Ziguinchor li mu xar yi nga xamante ni ñoo fi nekk taxu ko demee noonu bun sukkandikoo ci kàddu chef service régional bu élevage docteur vétérinaire Évariste Bassène fu mu nekk nii ñu ngi am 9 pour cent te dëgër na parce que daaw même période amoon nañu trois fois plus de mouton lu fi nekk euh, ren ji daaw amoon daaw même même date ëpp na ko trois fois te fu mu nekk nii li ngi soxla si région bi vingt trois la ñu soxla ñu ngi am am que neuf pour l' ensemble ni vraiment la mise en place te fu mu nekk nii lu gën a wóor moom mooy ku bëgg xar moom mu ñu jënd ko léegi. fu mu nekk nii daal moo dara wóorul lu gën a wóor moom mooy xar yu fi nekk. ku soxla daa mu ñëw jënd. situation bi ni mel nag tax na ba njëgu xar mi yokk ci daral bu mag bu nekk fii ci commune bu Ziguinchor askan wu fay jaabante nag gis ni njëgu xar mi seer na lool Seydou Mbodj di kenn ci ñoom. jot naa wër fii tuuti. mais ni ma gisee daal prix xaw na xaw na tàng tuuti. parce que bu ma wëree. yenn yoo xam ne xar yu tànne yi yoo xam ne ne yooyu rëyul tuutiwul yu yem yi euh, dañ lay wax ay cent vingt cinq cent soixante jëmbe cent quatre vingt. marché bi foofu la toll. mais nag loolu yaakaar naa ni euh, peut-être nu mu bëreewulee. xam nga bu bëreewul dañuy yëkkati prix yi. xaar yi teelu ñu ñëw prix yi cher. te fanke yi nga xam ni ñoom la ñu jiñ seeraay boobu la nag di wax ni li ni mel li ko waral mooy seeraayu aliment bi waaye tamit seeraayu transport bi. yi ki doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor benn Michel Kanfoudi pour Sud FM. Eh, benn des eh, Ziguinchor ak nag tàmbaleeg nawet bu baax bañ fa nemmeeku ndax ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti milimètres eh, Ziguinchor ñaari téeméer ak ñeent fukk ak ñaar foofu ca Oussouye boo cumul bi nag di dajale bi daanaka buñ ko xayma weesu na bu baax baax li ñu amoon ni ki daaw ci jamono jile situation boobu ci wàllu nag taw bi ñu jàpp ne mën na indi nawet bu baax ca région ba Ignace nawet bi samp na bu baax jamono yi fii ci diwaanu Ziguinchor ba tax na principaux postes pluviométriques yu nekk fii ci diwaan bi yu ci ëpp euh, dépassé nañu lu toll ci téeméer rek lu topp wàllu ndoxu taw bu wàcc fi ni ginnaaw nawet bi mu tàmbalee ba léegi jot nañu nemmeeku ay cumul yu ci mel ni ci Ziguinchor lu toll ci ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti milimètres wàllu ndoxu taw bi fi wàcc Bignona euh, toll ci téeméer ak juróom fukk ak benn ci wàllu ndoxu taw bi nga xamante ni wàcc na ci poste pluviométrique boobu naka noonu ci Sow ñu daal di nemmeeku lu tollu ci ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaari wàllu milimètre ndoxu taw bu wàcc di ay quantité yi nga xamante ni suñ ko méngaleeg daaw li fi amoon ci jamono yi romb na ko bu baax a baax di situation pluviométrique buy law jamono yi ci anam yu baax fii ci diwaan bi ah, suñu dégloo ñi nekk ci service météo nekk fii ci diwaan Ziguinchor ñoom ñi jàpp ni ci anam yu baax la taw bi di wàccee jamono yi fii ci diwaan bi ñu jàpp ni sax taw yu mujjee wàcc fii ci diwaanu Ziguinchor firndeel na nawet bu baax bi nga xamante ni mu ngi wéy fii ci diwaan bi ak ndoxu taw bu bëri bu ñu jot nemmeeku ci yenn ci poste pluviométrique ci ñetti fan yu ñu génn naka noonu ca Niassia ci département Ziguinchor bi ñu nemmeeku lu toll ci téeméer ak juróom juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti milimètres wàllu ndoxu taw bi fa daal di wàcc ci conki ñaar fukk ak ñeenti milimètres ca fi nga xamante ni mooy Balingoor eh, di fanweer ak benn milimètre wàllu ndoxu taw nekk ca département Bignona ci département Oussouye nag la ñu nemmeeku taw bu bëri bi nga xamante ni wàcc na foofu naka noonu ci Cap Skirring fu ñu jàpp ni enregistré na lu toll ci téeméer ak fanweer ak benn milimètre Jembereng juróom-ñeent fukk ak ñetti milimètres Oussouye eh, juróom-benn fukk ak ñeenti milimètres wàllu ndoxu taw bi nga xamante pluviométrique yu nekk foofu di situation pluviométrique buy wéy jamono yi ci alam yu baax ba tax la indi na mbëgte ci béykat yi nekk fii ci diwaanu Ziguinchor ñoom ñi nga xamante ni ñu ngi wéyal liggéey yi ak yi ci seen tool yi Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM Sud FM Euh, situation bi ci kaso yi nekkoon ponk bu mujj bi ci wax sa xalaat bi fees ba muy fees dell lëkko yi nga xam ne dafa daal nag màgget ba pare rax ci dolli daal di nag xat ay rëq-rëq ci wàllu yorin gi ni ko rapport bu IGE 2018 2019 daal di euh, xamle IGE nag daanaka def na ay recommandation ay digle ci situation boobu ñu caabi féete gannaaw ak administration bi Amnesty International section Sénégal daal di nag gis ne euh, li IGE wax daal di na koy rek nangu la lamu cay sax dolli mooy ñu fexe ba def ay quartier ci prison yi bu ko defee ñi ndaw ñi ak ñi nga xam ne nag ñooy euh, adulte yi ñu mën den rek dal di euh, séparer ñu bañ bokk fi ñuy nekk euh, Seydi Gassama directeur exécutif bi ñu déglu ko ak moom Diarra da Silva. waaw ñu ngi rafetlu liggéey bi nga moom la UG def. surtout li nga xam ne def nañu ko ci mbirum kaso yi UG wax na ci ay ay ay ay daf ci soulever ay problèmes yoo xam ne ñun yàgg nañu di koy di koy di koy soulever euh, problème bu njëkk mooy surpeuplement carcéral maanaam kaso yi dafa fees e que loolu tax na ba euh, ñuy denc ci lu mel ni rëbës ñoo xam ne dañ leen atta ba pare xam nga rëbës normalement képp ku ñu fa denc rek day fekke fekkee attewuñu la loolu moo loolu mooy yoon ndax maison d'arrêt la waaye yenn saa yi dañ fa dem fekk fa ñoo xam ne dañ la atte ba pare te ci képp képp dañ atte ba pare dañ la war a yóbbu camp maanaam ci maison d'arrêt et de correction wala boog maison de correction lu mel ni camp pénal liberté 6 wala bu Koutal ak yeneen ak yeneen loolu dafa dëppawul ak réglementation bi nga xam ne moom moo nekk en vigueur ak tamit les normes internationales en matière de détention euh, muy recommandé que ñu agrandir euh, maanaam ay ay dëkkuwaay yi nekk Koutal ak ñun li ñu wax mooy état dafa war a yu bees agrandir Koutal ak ak ak ak camp pénal fajul mbir mi te état dafa war a tabaay kaso ndax yi fii nekk yëpp en tout cas la plupart quatre-vingt-dix pour cent euh, tubaab ñoo ko fi bayoon jamono xam ne Sénégal askanu Sénégal ëpp loon euh, cinq millions ci doomu adama tey ñu ngi ci presque seize millions cinq cent mille doom adama yoo xam ne ci ci askan Sénégal lañu bokk kon criminalité day yokk population carcérale day yokk donc il faut investir pour yokk yaatuwaay kaso yi yokk kaso yu bees pour que ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ganaaw mun na fa nekk ci ay conditions yoo xam ne ay conditions de dignité humaine la leneen li nga xam ne euh, rapport daf ko pointé du doigt mooy euh, li ñuy dencee xale yi ak mag ñi ci même cellule xam nga loolu tamit dafa dëppool ak yoon te dëppool ak charte yi nga xam ne moom la Sénégal bokk ci mbirum Nations Unies xale bi nga xam ne dafa ja caabi daf ko féete gannaaw kenn waru ko boole ak ay mag. ndax soo ko boolee ak mag lu nekk mun na ko fa jàng mun na fa jàng euh, lu bon ah loo xam ne mag yi ñoo ko dugal ci moom moo tax recommandation mooy nañu séparer xale yi ak mag ñi ñu daal di nag euh, desandi ak ñetti yi nga xam ne nag gannaaw musiba ma amoon ci stade euh, Demba Diop euh, te juróom-ñetti nit woon ci am ñu bari ñu amee gaañu gaañu stade de nag ngay daal di fàttaliku ña ca loru woon ci àllarba ji stade Mbour googu nga xam ne nag moo ci ëppale woon ci ñi daal di nag loru ñoom nag ak sàkkuteef li nga xam ne nag mooy ñoom ak waa fédération sénégalaise bu football ak ligue sénégalaise bu football professionnel bëgg nañu bés boobu. boobu ñu koy daal di nag dugal ci taarix ci tàggat yaramu Sénégal di ko fàttaliku Abdoulaye Guèye mooy président Stade Mbour ñu déglu ko ak Mame Diarra Da Silva. di sant yàlla di julli ci yorentam bi di ñaan yàlla ndaw yooyu dem yàlla xare leen àjjana di sant nag di gërëm imam yi fi ñëw tey yëpp di sant di gërëm autorités yi fi ñëw yëpp xarit yi mbokk yi surtout supporters yi nga xam ne ci seen kaw la dal ndax ñëpp ñëw nañu ñu def ko dans la simplicité ndax mbas mi di ñaan yàlla aussi mbas mi gaa fi jóge waaye ko dans la simplicité waaye boo xam ne fédération lañ ko lancé ligue bi lañ ko lancé muy bés boobu di le 15 juillet ñu def ko bés boo xam ne day des ci taarixu histoire footballu Sénégal taarixu sport Sénégal ndax nag stade de Mbour moom bés boobu dafa nekk bés boo xam ne dafa ma am ñaar yu tëj yu ci daje bés boobu la ñu am trophée bi gën a mag ci trophée yi ñu am au niveau national muy coupe de la ligue waaye bés boobu aussi mooy bés bi gën a tiis ci bésu stade de Mbour ñu am ci huit juróom-ñett ci suñu ndaw yoo xam ne euh, dellu nañ ci seen borom. loolu moo tax Stade Demba du ko mës a fàtte loolu moo tax aussi te bés mel noonu mosul am ci footballu Sénégal loolu moo tax aussi ñuy ñaan te yàlla bu mu fi amati tamit moo tax aussi ñuy ñaan euh, fédération ñuy ñaan ligue bi ñu jël bés boobu dugal ko ci taarixu footballu Sénégal taarixu histoire Sénégal bu ñëwatee ñu màggal ko ni mu waree. donc loolu daal la ñaan euh, di sant yàlla nag bu baax ndax ñëpp ñëw nañu teew nañu ñu ñaan ñaanal xale yi xale yi wuy ji seen borom ñu ñaanal leen. xale yi gaañoo aussi am na ñoo xam ne ba léegi wéraguñu ñu ñaanal leen ñu gaaw dellu ci seen sago ba mën a doxiwaat seen soxla Ah, ay yoon yu bon yi ci jëm route des Niayes foofu liggéey yi nga xam ne nag jotul la yegg tax na circulation ba daal di amee jafe-jafe axe bi jëm yëmbal Malika ba Kër Massar ah, taw yi métti keroog daal di ñëw nag yokk <laughs> lii di méttitu askan wi yore rek wàllu ah, oto di fa dem ak dikk ndaw yu barab ba nag looloo tax ñu daal di daje loolu ñuy sàkku nag mooy liggéey ba ñu daal di koy mottali nee ñu ci nguur gi lañ koy daal di sàkku nee ñu nag bu fekkee eh, taw yi ñëwaat na gën a yokk li ni mel ñoom seen xeex dinañ ko. daal di baral Mortala euh, Babou yore seen kàddu ñu déglu ko Alaaji Moussa Thiam. waaw am naqar bu métti bu ñu dal muy route nationale 2 bi ñuy wax route de Niayes vraiment ñetti at ñu nekk ci ay jafe-jafe euh, tali boo xam ne dara sikku ci woon nag ñu xëy xëy dindi ko départ ko technopole pour continuer moom pour dem route de Niayes romb Malika dem boori Kër Massar mais bi ñu ñëwee ba Malika vraiment danoo arrêté travaux yi muy Ageroute ak société chinoise bi nga xam moom moo ko yoroon bind nañ wax nañu du benn du ñaar mais population Malika jug nag taxaw vraiment di ko naqaru bu ngeen xoolee lii di romb oto yi fi ñu taxaw terminus Malika bi oto mënut a dem oto mënut a dikk même policiers yi sax amuñ sax fu ñu monté fu ñu taxaw ndax poto poto bu dul jeex avant ay poussières yu métti la woon actuellement nag ndoxu taw bi wicc wiccal kese la def kenn mënut a dem kenn mënut a dikk loolu dañ koy ñaawul vraiment loolu lu ñu naqar la di ci interpellé président de la république ak euh, ministre euh, ministre bi nga xam moom moo yore wàllum infrastructure ak AGEROUTE ñoom ñëpp ci lii nag vraiment ñuy naqarlu wax nan waxati waxaat gis nga lii nii dañ cee war a jóg ñun Malika lañ dëkk ak Dakar 26 kilomètres vraiment kon lii ku ko fi gis danga koy ñaawlu bu baax a baax ñun daal li ñuy wax mooy woote nañu yëglu nañu bu fekkee nag ñoom ñëwuñu def li nga xam ne ñoom moom la ñu war a def ñun dinañu génn taxawaat nan ko defe woon ci mbëbës dafa doy dellawaat buum ca mbooy mbooy ga dinañu baari route nationale 2 bi oto du dem oto du dikk ba ci veden bi sax bu ko jaree kon ñun ci réew dañu jox li ñu moom lii dafa métti te nag bu ñuy wax du Malika kese moom moom moom tali bi sénégalais yëpp ñoo moom tali bi ki jëm Guédiawaye ki jëm Parcelles Assainies ki jëm Kër Massar Mboro ak fépp fii la ñuy jaar kon lii moom ñu ngi koy ñaawlu vraiment nag bugguñu nag ñun ci yar la ñu xamee ak diine vraiment lii daal naqari nañu ñu ngi koy méttiwul encore une fois nañ ñu ñëw defaral suñu tali bu ñu ko deful nag dinañ joxe délai diir bu gàtt dinañu gis te dinañ am nun def ak ñoom bind nañ Ageroute bind nañ le préfet bind nañ ñëpp ba ci maire bi lii nag moo raw corona parce que bu nee corona bi ci ay poussière lay jógee ak nangam ak salté ñu dëkk moom nii encore mbëbës nekkat suñu wet vraiment lii nag waa Malika kon respecté leen kon yow Macky Sall monsieur le président de am yow lañu dénk réew mi réew mi ñun ak yow ñoo ko ko mel ko Eh, ñu daal di dem Diourbel ak eh, maire bu Ngoye bi daal di jébbal ay kit alimentaire ñi nga xam ne nag dañ leen fàtte woon wala boolewuñu leen ci registre national unique bi ba jotuñu ay ndimbal fukk ak benn million la ñu daal di génne ngir jàppale leen François Fall mooy maire bu Ngoye ñu déglu ko Adama Ndiaye. ah ñun diggee woon ne bu ñu état bi dimbalee ñeneen ñi ba pare ñi nga xam ne ñoo nekk ci erreur bi mairie bi aussi dina ñëw dimbal ñeneen ñi nga xam ne jotuñu loolu moo tax ñu tase fi tey jël li nga xamante moom la mairie bi wote woon muy 16 euh, millions 500 pour jàppale les 560 ménages yi nga xam ne jotuñu woon ci li nga xam ne moom la état bi doon joxe. loolu moo ñu dajale fii tey. 30 euh, tonnes de riz la euh, fanweeri tonnes ceeb la ak juróom benni téeméeri bidon diwlin de 5 litres moom la ñu bëgg jàppale ñi nga xam ne xam ngeen Ngoye dafa nekk commune bu yaatu. lu war a mot plus de 30 000 habitants. état bi mënul lépp te comme mairie démembrement de état la. ah ñun itam bu état bi defee benn wala ñaar maire bi war naa mën a def benn loolu moo tax ñu ñëw tey pour jàppale nekk à côté de l' état pour jàppale ko ci li nga xamante xëj na moom loxoom jotutoon ci ménage yi nga xam ne loxoom jotutoon ñu ñu mu jox leen loolu moo tax ñu ñun aussi à notre niveau au niveau de la mairie de Ngoye ñu ñëw pour jàppale 560 ménages yi nga xam ne bokkuñu woon ci RN. les fonctionnaires les fonctionnaires yi nga xam ne dëkk nañ biir Ngoye jël nañ leen en charge bàyyi ñu kenn même fonctionnaires les enseignants les gendarmes ak yeneen fo bépp fekk xeepu fonctionnaire boo xam ne mu ngi biir Ngoye jël nañ ko en charge bàyyi ñu benn ménage muy saaku ceeb ak benn bidon diwlin ñëpp la ñu jox bàyyi ñu kenn. si FM ganu bi. gëmu bés bi di àddu nag ci situation tabaski bi ministre Samba Ndiobène Ka moom la ñu dégg wàllu càmm tenk wàllu càmm gi ñu waxtaanam ak El Hadj ñu ngi ak euh, Samba Ndiobène Ka ñu ngi lay nuyu. yow nag yaay ministre bi ñu dénk wàllu élevage bi waaye tamit ak production animale monsieur le ministre gis nañu tabaski bi nag euh, ñu ngi ci euh, jege ñu ngi koy jege si bu baax a baax waaye dafa tombeek mbas mi am fii ci biir Sénégal ndax mun nañ jàpp ne ren jii kat xar dina am te tamit ku am loo am di nga mën a am xar. occasion bi nga ma may pour ma mën a wax ak sama mbokku Sénégal li ma la mën a wax ba wax la moom mooy que ne lépp loo xam ne état war na ko def pour marché bi mën a am ay xar incha allahu taala dinañ ko def te mën naa ne ñoo ngi ci déjà bi ci jiitu li état def moom mooy président de la république ci boppam moom moo signé bataaxal jëmale ko ci ministère yu bari yoo xam ne ñoom ñoo seq opération tabaski bokk na ci li nga xam ne def na ko mooy déjà yombal dem bekk bi pour ñi nga xam ne ñoom ñoo jëli xar fii ci biir réew Sénégal mais aussi ci bitim réew pour faciliter askan wi opération journée bi bi nga xam ne journée tabaski la parce que journée tabaski nekkatul rek euh, journée religieuse waaye journée économique la journée sociale la kon loolu nag su amee euh, dañu koy rafetlu beneen wàllu bi nga xam ne état bi mu ngi ci def kémti lay kàttanam da doon am à dix jours de l' su événement bi desee fukki fan état indi ndox ci fi nga xam ne foofu la ñuy jaayee xar yi indi courant waaye appui en aliment bétail mën naa ne nag euh, depuis daaw ba ren au lieu que mu nekk dix jours avant fête bi léegi quinze jours avant fête bi la loolu lépp pour faciliter opérateur sénégalais yi comme opérateur étranger yi jóge Mauritanie Mali ñu man installé wu lu gaaw a gaaw pour mën a am indi xar ci ci suñu biir réew donc ñun euh, cër boobu lañ ci moom mooy cëru yombalal ki nga xam ne dafa bëgg jëli mu mën a jëli lu bari lu lu ko neex mu indi waaye su ñëwee ci site bi tamit mu fekk fa police fekk fa gendarmerie waaye fekk fa ndox ak courant et beneen aspect bi également mooy état da doon jël chaque année luy tolloog euh, aliment bétail mu luy tolloog sept cent tonnes mu koy appuyer ci point de vente yu réew mi yépp daaw mën naa ne def nañ luy tolloog mille quarante cinq tonnes ren bi may wax ak yow ñu ngi ci toll ci mille trois cent cinquante tonnes c'est-à-dire le double en termes d'appui autre aspect bi nga xam ne jar naa noté ci loolu président dana ne période Covid la ñu nekk période bu jafe la kon pour accompagner consommateurs sénégalais yi nañu accompagner déjà ñi jaay xar nu ñu leen di accompagner mooy que ne li nga xam ne moom mooy aliment bi yéen a koy jëndee neuf mille francs usine wala huit mille francs usine su ngeen ñëwee jaay leen leen ko quatre mille francs donc c'est un prix subventionné presque à cinquante pour cent et d'ici euh, à quinze jours de l'événement incha allahu taala point de vente yëpp yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi dina leen approvisionné donc loolu mooy ciru état mais ciru état du indi na xar euh, ñaari xar wala indi na junni xar wala des millions de xar non c'est pas de l'état beneen aspect bi peut-être ma profité ci yi euh, woo sama mbokku Sénégal di leen su ñu mënee gaaw context bi ñu nekk contexte Covid 19 la bëgguñu nit ñi di dajaloo ci marché yi ba mu ëpp. na nit ñi éviter bàyyi ba mu des benn jour ñaari jour di jëndi parce que boobaa affluence lay indi te loolu mën na yaatal feebar bi. Euh, beneen aspect bi tax aussi ñuy inciter nit ñi pour ñu teel a jëndi mooy surtout que su ñu teelee jëndi su marché bi jeexee wala su marché bi wàññeekoo opérateur bi dina. mën a am occasion mën a dellu ci biir réew mi wala ci bitim réew dolliwaat pour ñeneen ñi nga xam ne amaguñu woon mën a am mais à deux jours de l'événement wala une journée de l'événement su nit ñi jëndul ba moment boobu noonu su xar jeexee également foofu kenn dina jafe kenn man caa indi euh, euh, saafara franchement foofu aussi on invite les gens par rapport à ça. gis nañu ne euh, tamit li nga xam ne rek moom mooy wax nga ko léegi ci wàllu mbas mi la ñu toll besoin soxla yëpp ci xar ñaata lañ ko war a mun a xayma pour Sénégal. tey suñu xayma ci wàllug euh, soxlay Sénégal mu ngi tollu ci huit cent trente six mille mouton la ñu estimé en de besoin maintenant nag euh, Dakar kese ci boppam mu ngi toll ci deux cent soixante cinq mille têtes donc loolu noonu kon kenn ku ne xam na euh, ay xar yu bari la laaj waaye li am solo ba am solo mooy li ñu noté gum ci post frontalier yi moom mooy Rosso mooy maatam mooy Kidira Euh, au niveau marché yi nga xam ne aussi dañ ko am ci biir réew mi tey tey mën naa ne ne démb rek avec euh, poste frontière bu Kidira mën naa ne même période euh, daaw suñ ko comparé même période daaw mën naa ne ëppal nañ luy tolloog vingt mille sept kon su loolu tendance boobu continuer am nañu yaakaar ne marché bi dina mën a am vraiment xar ni mu waree waaye nag du caagin aussi pour ñun une raison ñuy wax nit ñi que ne bu ñu jël ay disposition dama bëgg kenn ku ne xam ne mbir mi mbirum la mbiru Sénégal la mbiru ñëpp la kon kenn ku ne def kéem tolluwaay kàttanam de son côté pour que euh, mu man ci participer activement pour que ñu am réussite pour tout le monde. laaj bi mujj mu ngi jëm nag ci wàllu Sénégal léegi nag nak la war a mën a def ba nag ñun am suñu xaru bopp yoo xam ne dafay doy ba duñ demati bitim réew pour jéggaani xar ban politique la Sénégal war a taxawal ci wàllu woowu. loolu nga wax noonu question bu am solo la parce que nag kenn ku ne xam na période tabaski mën naa ne luy tolloog soixante milliards la ñuy consommer ci benn bés soixante milliards nag suñ koy consommer ci benn bés te li gën a bari ci milliards yooyu fekk Mauritanie lay ñibbi wala Mali lay ñibbi wala Niger wala Burkina dama ne loolu du njëriñu réew mi waaye nag dañu naan ku amul ndey nàmp maam su ñu amul xar yi ñu bëgg fii ñi ci réew mi c'est tout à fait normal ñu jéggaani ko comme niñ ko defe woon daaw noonu lañ ko defee ren dañuy ubbi frontières yi daaw am na fii ay ay nit ñu jël euh, seeni ay vidéo poste comme quoi que ne ñun dañu def protectionnisme alors que li ñu defoon daaw def ko daaw jéeg defaa ko daawaati daaw jéeg moom lañu def daaw moom la ñu def ren mooy lettre circulaire ubbi frontières yi képp ku bëgg jënd bitim réew nga jënd képp ku bëgg jënd à l'intérieur du pays nga jëndi pour approvisionner le marche mais nag opérateur bi ci boppam moom mooy xool est-ce que li mu defoon daaw am na ci njariñ am na ci rentabilité moo koy tax a dellu ren wala gis ci donc li ma mën a wax foofu rek mooy que déjà dañu lu état li mu def ci wàllu financement parce que at yi wees nee naa la euh, soixante trois millions la ñu financé daaw ci fonds TAP ren ñu ngi financé luy tolloog un milliard huit cent millions ci fonds TAP loolu effort bu mag la waxuma nag aussi deux milliards yi nga xam ne bërki démb signé nañ convention entre l'ADER crédit mutuel ak euh, institution bu PAMECAS pour accompagner encore éleveurs yi donc wax ne loolu effort yu mag am na donc loolu ressources yooyu yëpp nag ñu sañoon day des suñu réew pour mu des fi nag il faut que production bi ñu développé ko et moo tax bokk na ci suñuy ay suñu ay euh, perspective mooy développer surtout la production de d'ovins au niveau national et loolu yaakaar wuñ ko fenn fudul euh, intéressé jeunes yi ak jigéen ñi ñu dugg ci bu baax ñu man leen accompagne ñun de notre côté ci ay bergerie moderne mais aussi accompagner leen ci ay géniteurs li nga xam ne commencé nañ ko depuis depuis très longtemps et incha allahu taala suñu génnee ci kii bi nii danañ def li ñu naan des quartiers généraux l'élevage mooy ay waxtaan yoo xam ne kàngam yi nga xam ne ñoo ko seq ñëpp acteurs yi ci nekk ñëpp ñooy toog waxtaane élevage ni mu nekkee tey ak fi ñu bëgg mu jëm suba incha allah taala Samba Ndiobène Ka ñu lay sant di bu baax a baax jërëjëf monsieur maa ngi leen di yaay ministre bi ñu ko wàllu élevage ak tamit production animale. jërëjëf kay eh, waxtu yi daal di koy dab daal ñuy dab ñu itam ndax li ñu cërale moo jeex eh, ak yi jawar rek jàll laata ñu yegg nag ci 18h ak Habsa Ilimane Wane mi leen fas yéene jukkil xibaar yi ci kàllaamay tubaab jaajëfal Assane mi fare ci sottandikukaay bi mu ci biti ak jaamu biir gudd fan ak wér-wér la am ak mën ak fekkeek tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf.